jërë ngeen jëf seen ànd ak seen seen youtube tas info seen bi leen di xabaar ci waxtaan yi nga di Serigne Mor Asta Touré koy amal jëmale ko ci wàllum wér yaram loolu nag la ñuy di ci ànd ak yéen tey yi nag ñoo ànd ak moom ci lenn loo xam te ne eh, jëriñ rëy na lool mu di lu jëm ci wàllum kaani eh, ak ay njëriñam ci doomu aadama ñu bëri bari gaafal lañ ko ci naan lii lekk lee lay faj lay yàq Viral daal bari na ay njëriñ lool moom kaani bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser ci suñu aliment yi ak suñu lekk yi euh, ci saa su ne moom moomay daal na ci indi ay leeral yu bëree bëri yoo nga xamante ne képp ku ko diglu di nga ci gis njëriñ loo xamante ne lu rëy rëy la ñu ànd teewlu li nga xamante ne moom sëriñ Mor daal dina koy indi. kon tey suñu waxtaan mi ngi jëm ci wàllu kaani kaani nag suñ ko waxee mooy kaani bi ñuy ji muy kaani xeeñ muy kaani doom ci kaw nag ñu bay ko mbay mu baax. waaye kaani yi xew léegi moom waxuñu waaw kaani yi nga xam nañ koy dolli kaani euh, bokk na ci yi tax nit ki am cawarte pour mën a liggéey pour mën a jaamu yàlla pour yeneen lu baax la torop tamit ci wàllu jigéen ñi ñu bëgg am doom bu ñuy jëfandikoo kaani di ko boole ci li ñuy lekk daf leen di permettre may seen sadiid yooyu deret di mën a wëndeelu ci yaram wi bokk na ci sawarloo nit ci jaamu yàlla moo tax nitu yàlla yu bari fonk ko daa ko jëfandikoo moom kaa ni waxuma nag li ci science jàngale nii rek nga xam ne science dem na ba àdduna dox matériel am lu ci nekk mën koo gëstu ci laboratoire yi mën koo gëstu ci xoolukaay yi ba gis na nangam ak nangam moo tax bépp xam-xam bu doon wax rek tey la gën a wér li ciy wér tey la gën a wér ndax xoolukaay yu yi kaani bokk na ci liy reesal aw ñam bu fekkee da koy jëfandikoo waaye jëfandikoo nag lu yam nekkul loo xam day ëpp nit ki day lekk lu yam ci kaani te loolu dana tax bu lekkee mu rees bokk na ci liy rey ay saan kaani dana faj estomac dana faj ulcère dana faj cancer dana faj yëpp waaye nag ci kaw nañ ciy jëfandikoo xayrul umuuri aw saduha yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam lépp lu man di doon la ca gën a digg doomu moo ca gën kon loolu mooy lu jar a bàyyi xel ci bëgg a wér yaay jël say responsabilité xool gàncax yi ñu war a jëfandikoo nga di ko jëfandikoo bu fekkee mën ngaa wér moo tax nga nga mën a wér kon bokk na ci eh, njariñal kaani maanaam day tax sa gis-gis leer sa gis-gisu bët bokk na ci liy leeral deru yaram bokk na ci liy tax sa yaram du ëpp ba toll ci yenn yi nga xam day aajoo ngay régime wala yu mel noonu lekk kaane bokk na ci li faj bopp yi di metti bopp yii di metti mooy li ñuy tudde asodaax ay xaaj la nag asodaaxu nis yi dafa am mooy koo xam ne xaaju bopp bi mooy metti wala koo xam ne bopp bi lépp ay metti ñu tudd ko shaqiqa bokk na ci liy dox diggante nit ki maanaam dafay def li ñuy tudde contre cancer waaw antibiotique boo xam ne day fekk yi tax cancer di am bokk na ci liy jox nit ki mu am guu waaw maanaam day soom da yeewu rek naqari deret ba nga moom yenn moment yoo xam da ngay naqari deret loolu tamit kaani da koy saafara kaani xeeñ bii ñu xam da koy saafara bokk na ci liy liy dëgëral appareil bi nga xam ne bu paanee lépp paan te balaa benn jàngoro dal moom lay attaqué ñu ngi tudd jihaasul manaaha appareil immunitaire boobu nga xam ne même bu la feebar dal wala virus moom lay attaqué bu ko xasee gagné rek day gagné mboolem garde corps nekkoon ci yaram bi am ay garde corps yu koy aar mu tudd jihaasul manaaxa lu am solo la waaw appareil immunitaire boobu bu xasee yàqu nit ki feebar yëpp mën nañ ko dal booy lekkaan da koy aar mboolem xeeti romantisme yi dal nit tamit mi ngi jëfandikoo kaani xeeñ wala kaani doom bi ci lu yam nag lu digg doomu di ko boole ci li ngay nekkee ak li ngay añ ak li ngay reere day dox diggante nit ki ak mboolem xeeti romantisme yi ngay dégg bokk na ci liy tax nit ki du seere bokk na ci liy tax nit ki du jël sedd am ñoo xam dañuy liw fu ñu toll wala ñu am problème mu soniship boo xam wala ñu am problème soj bu dëkk dañuy jëfandikoo kaani kaani xeeñ bii bokk na ci njariñal kaani waaw bokk na ci lujum yi nga xam ne ñu ëpp vitamine C vitamine C ñëpp xam nañ li jariñ ci yaram vitamine C moom bokk na ci yi ko ëpp ci mboolem xeeti lujum yi waaw bokk na ci yi dox diggante nit ki ak manque deret kani amna na li ñu tudde potassium potassium waaw moo tax boo ko jëfandikoo ñaareel na bañ dal mën na bañ a yeb mën nga am tamit xol bu yenn maladie yi du dal moom kaani xeeñ wala kaani doom bi am na tudde folik bi nga xam ñi am doom ñu ëmb leen di aaral loolu ñoom bu dee jigéen bu kadi ko lekk lu yem day aar seen loolu ñu ëmb muy doom ji waaw aar la yow mi ko ëmb waaw vitamine B6 bu am solo la kooku mooy tax sa yaram machine yi mën a togg deret ji togg deret ji waaw pour vitamine B6 boobu bu amee ci bépp ñam bu am nga di ko jëfandikoo day tax sa deret mën a bari day togg li tudde kurayaatu dam yi nga xam ne mooy tax hermone yi mën a dund mën a transféré bépp njëriñ pour yóbbu ko ci bépp cër ci cëri doomi aadama wala bépp dig-digal ci yaram doomu aadama wala sadit Bu nit ki jëfandikoo ne bokk na ci liy dëgëral ay yax ndax dafa am calcium calcium te calcium dëgëral yax rek lay jariñ moo tax ñu koy taamu ci eh, ñam yi waaw ak yeneen yu bari day dox diggante nit ki ak pata maanaam nit ki ñi xam ne bañ seen yaram ëpp dañuy jëfandikoo kaani waaw ak yeneen yu bari waaw am na yeneen xeeti matière tamit yu ci nekk ay doxal bokk na tamit liy régler suukar moom dafay organiser suukaru nit ki ci yaramam ci deretam moo tax ñaare nga koy jëfandikoo pour nga am jabet du yomb kaani xeeñ nag laa wala kaani doom bi waaw kaani xeeñ wala kaani doom bi li ci nekk ci ay njariñ moom kenn mënu la xam nu toll ndax maanaam cent grammes boo ko jël tey lu mel ne ay grammes ci njariñal kaani cent grammes boo jël ci kaani quatre-vingt-douze yi ndox la surtout kaani xeeñ bi quatre-vingt-douze yi ndox la ci cent grammes boo jël mu door a ñëw nag ci yeneen yim am cent grammes boo jël ci kaani xeeñ quarante pour cent yi ay ferñeent la bu dee carbon yi ci 100 grammes boo jël ci kaani xeeñ àgg na ci 9 grammes virgule 46 bu dee protéinate yi 100 grammes boo jël la waaw bu dee sodium 7 milligrammes xam nga ak lekk ci aw meññeen wala dara bu dee potassium bi 340 ci 100 boo jël. vitamine A cinquante neuf microgramme la ci cent gramme boo jël ci kaani vitamine C quarante deux virgule cinq milligramme kon nga gis ne kaani njëriñ yu bari la làq waaye nag ki koy jëfandiku mu di ci jël lu yam su fekkee daa bëgg wér waxuñ ne kaani baax na rek nga dem lekk ci lu ëpp mën naa yëngal si estomac mën naa yëngal sa insère au lieu mu faj ko da koy yëngal kon lu yam nga wut sa kaani xeeñ booy lekk pajal ko ci wala nga koy toggaale ci ñam yi lu baax la ci wàllu wér gi yaram su ko nit kiy jël lu yam day faj ulcère day faj estomac day faj yëpp waaye ci kaw mu nekk lu yam waaw kaani dafa am li ñuy tuddee rawxaaniya mu lay disponible pour nga yaram yi mën a sawar bokk na ci liy tax boo koy lekk bi jaaw du la yam bi jaaw surtout ñi amee feebar bi jaaw nga xam ne amul yenn aas ba seen karaw weex xalak bi jaaw kan yi day faj loolu euh, ni ndox mel nga xam ne dañ koy jël ngir mën a ngir mu mën a disposer suñ cër yépp pour ñu gaaw a am contact ak jaamu yàlla kan xëy noonu lay def moo tax ci jikko wala defar ko moom moomu kaay xëy day laaj ak set laaj ak sell day bañ daal yu tax wala sobe wala jigéen surtout bi ci tool yi waxuma kaan gi day xaru moom kaani xeeñ waxuma kaani doom bi kaani xeeñ laa wax loolu kaani xeeñ bi man nag ci faj kaani doom bi tamit mën na ko waaye ci kaw ñu saytu ko ñu bàyyi ko xel bu baax kon lii mooy li ñu indoon tey ci jariñul kaani ci jërë ngeen mi ngi doon kon mooy leeral yi nga xam ne kii di Serigne Momar Asta Touré dal na ko yoon indi jëmel ko ci lii di kaani di lu am am solo ndax ñu bëri bari gaafal na lii di kaani waaye moom mi daal di ci indiwaat ay leeral lu bëri bari ci njariñi ak it baax baax yi nga xamante ni daal dina koy làmboo moom kaani ak it lépp xam xamante ni mi ngi koy faj ak li nga xamante ni mi ngi jàppale doomu aadama loolu lépp moom mi di Sëriñ Mor daal dina ko ci indi ci ay leeral yoo xamante ni yu mucc ayib la yoo xamante ni képp koo dégg di nga fonkaat lii di garab yooyu xam xamante ni mi ngi ci doon wax. Eh, moo di kaani nekk loo nga xamante ni ñu bëri bëri daal leen koy eh, gaafal ci lu jëm ci wàllam lii di estomac yee ci ak yee aju waaye moom mi di sëriñ moo daal na ci indi ay leeral yu bëri bëri ci tawat yooyu ak it li nga xam ne noonu lan mën a daal di mucc ci def tawat yu bëree bëri loolu mooy li nga xamante ne moom leen leen fi indiloon ngeen di wéy di abonné ngir ma dem lépp loo xamante ne jëm na ci ay vidéo yoo xam te ci kanam den leen ko indilaat wéy leen di abonné seen seen YouTube ba tas info jaa ngeen jëf